tam ci ko xam ne moom tam tey moo nekkoon bis bi mu war a génn ci ci ci appartement bi mu nekkoon muy Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi mais heureusement ba ki ñu naan Cheikh Alassane Sène Cheikh Alassane da nga koo xam léegi. laa ilaha ah. moom li xam moo bari nag c'est que bari bu bu feesee du yëngu. Hmm? mooy problème bari ko bu fees du yëngu. te ndéyge mi daa fees dell moo tax yëngu du ko mën. <laughs> loolu moo jaaxal ci ndéyge daa fees dell. bu yëngatoo nag Sénégal yëngatu da nga xam Cheikh Alassane Sène. billaay Aline Aline ëpp sax kooku sam papa la. dégg naa ñu ne nit ku baax la ku mën a ku mën a. sama baay la ku mën a dimbali nit. mais bi mu gaañoo ba 40 jour yi mu ma taxaw. barke Seydina Muhammad Cheikh Alassane billaahi boobu laa ko gëj a teg bët ba ni may waxee gew tey nii laa gi a gis Cheikh Alassane Sène ba ni may waxee gew nii mm, sama yaay gaañu na mu ñëw sama kër bokk ak man naqar ba mu jeex yëkkati ay million yu bari jëndal ma nag jënd ceeb jënd dugliñ te naan ma bu ko kenn yëg keroog laa gëj a gis Cheikh Alassane quarante 40 ya chaque jour mu ñëw taxawoo ma ak sama famille. ndeysaan nit ku baax a ngi noonu. looloo gën a ndaw ci li mu def moo tax bi ma gisee Fatou du dugal ko bi ma gisee Fatou dugal ko. Mm-hmm. dama ne ah lii duma ni guléet. Mm-hmm. ndax yàgg na ko def. Mm-hmm. c'est pas la première fois. d'accord yàgg na ci jëf yu baax yi. waaw ndax fekk na. ma nekk ci sama ndigg ndënd foo toll di dégg ndey géey ma wecc ma ma ma ma ma perte li gën a for ci nit li gën a jege ci doomu aadama muy yaay mm-hmm. naqar boobu ku ko bokk ak man ba léegi maa ngi la téye mais xam nga jamono day toll foo xam ne mm-hmm. kilifa yi da leen bëgg a gis léegi doo leen mën a gis waaw Cheikh Alassane sant naa ko baax a baax a baax te saa su ne maa ngi koy ñaanal nit ku baax a ngi noonu. ah li mu def nii de. li mu def jëf ju rëy la defatina jëf ju rëy sax la. waaw waaw lii de rëy na trop dimbali koo xam ne ci mbedd la naroon nekk. ma ne defatina jëf ju rëy ndax yàgg def jëf ju rëy ci la dëkk. ngoog Alassane Sène. barke borom Tuubaa bëgg Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. fonk nit am respect am yar. Mhm. kilifa gu am yar ngi nii. kilifa gu ñu éduqué yi nii barke borom Touba. moo tax mu am solo. mën naa bind ci moom livre. mais 2012 laa ko gis. sama jour quarantième jour yaay laa gëj a gis Cheikh Alassane dafa mel ni dañ ko ne woon demal nga taxaw Ndeye bu lépp wàccee rek nga dem. moom loolu mission la woon rek. billaahi wallaahi wal kitaabi. 2012 laa gëj a gis laa ko léegi. ba ñu ngi ci 2023 presque incha allah. barke ñaata at la. léegi mu mat euh, ñaata at 2012 ba 2022 10 ans lay war a mat. Ah, ok léegi mu mat 11 ans. na ko yàlla defal jàmm loo mel ren yàlla nga mën lu ko raw déwén yàlla nga mën lu ko raw suñu sœur nga taxaw te buñ ko mënoo nit ñun ñoo koy def suñu sœur nga taxaw suñu rakk nga taxaw suñu yaay nga taxaw tamit. Mhm. waaw. Mhm. te man Fatou euh, dinaa la jox benn conseil. Mhm. utal euh, business boo dugg nga dugg ci. surtout waaw nga liggéey nga bañ a dépendre ci kenn tamit aussi parce que yow ku am jom nga te nit ku baax nga it. te bu la yàlla fayee sa xol doo sonn am nga xët-xët nii nag mais xol bu baax nga yor xol bu rafet nga yor. Mm-hmm. xol bu rafet nga yor loo am bokk ak doomu aadama yi man xam naa ci dara. mais li li olof yi naan balaa kenn bi ñëw boobu day fekk ma ngemb bu yàgg. yow ngembul toog di xaar. Mm. lu mu metti metti metti dëgg la. situation day am mais lu métti métti na la fekk nga denc dara teg bu problème këtt ne jonn nga faj sa soxla waaw. loolu olof di wax lu ne këtt lu ne jonn koy faj. waaw kay. yàlla na leen yàlla defal jàmm. amiin euh, jumboor yi. Mhm. Alsaan Seen xettali na Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi ci panaanum biti. Mhm. mbaa ci jaaxle gu méttee méttee métti. Mhm. donc jëf ju rafet jooju mu jëf. Euh, laaj na jàngat aussi waa Aliou. Mm. Euh, Alsaan Seen yàlla na ko yàlla fay. amiin parce que yonent bi dafa ne. sallallahu ñëw di wut si yow. Mm. dont dafa war wor war war war la waxoon mais léegi mën nañ ko indi même bu yéegee avion wala mu yéeg oto wala lépp lu mu mën a yéeg tamit nee na jàppale ko dafa ne la donto dafa solu jàppale ko ak koo xam ne nii da nga koo gis muy loru ba yuuxu ngay jullit. doo ko bàyyi noonu mais léegi kii Thierno Alassane Sène nii lan lay liggéey. Thierno Alassane day liggéey de. waaw dëgg. day liggéey de est-ce que dafa wandaalu fay bor bi wala dafa liggéey fay ko. daa liggéey fay ko daa liggéey fay waa léegi est-ce que Thierno du exemple. Cheikh Alassane Sène. Cheikh Alassane Cheikh Alassane mii Cheikh Alassane mii est du exemple. exemple lan. est-ce que bu defoon ni faatu dina fayal faatu. loolu tam question la de. Hmm? waaw waaw ma répété. yaa ngi dégg xoola. waaw yow yaa tànnal sa bopp. ab xeex. yaa ngi dégg. waaw. kan moo mës xeex ba fayee ko. xeex ba fayee ko amul mais yéen xanaa dangeen ngeen man diw laay xeexal. bu fayeegu moom. waaw noo déglu déglu ma fii bu baax. ñoom faatu dañuy toog di wax man diw laay xeexal président Macky Sall laay xeexal. Mm-hmm. kan moo mës a gis ma répété ko Macky Sall génn ne nañ ko xeexalee nii amul du dëgg. Mm-hmm. waxa rek. Mm-hmm. léegi yow amaan na ñeneen aussi dañ ciy laaxatu naan Macky Sall na gestu ñii. ndax Macky Sall day gestu kuy xasaate. du ko def. lu dëgg faatu mhm. sama jigéen la mais waxtaan wax dëgg ci la mhm. yaa ngi dégg mhm. suñu waxee lii nañu wax lee wax la ca des yaa ngi dégg comme yow da ngay xeex pare goo xeex loolu yee kër gu seer yow pare goo xeex da ngay xeex yow jimbóor yi yaa ngi dégg eh, jimbóor yi waaw jimbóor yi xula xula xula xula bu dee côté boobu ah billaay wallaay talaay di nga ci mer ndax dangay fekk ku yoru fukki dërëm dem jëru quatre këru quatre cent mille wala këru trois cent mille wala këru deux cent cinquante mille te liggéeyu ko dégg non non wax waxuma non looloo am ci réew mi laa lay wax koo xam ne xëyul gontul wax du faatu de buñ kii faat faat dafa feeñ la rek de léegi kaa ma wax la non ne eh. su fekkee yow da ngay xeex ñoom ñu ne dañuy xeex dañuy xeex. man waxuma cadre xeex de. waaw déedéet man nag ci ci ñoom laay wax. ñoom ñooy nit ñi laa lay wax léegi. ni ñu amee fit loolu euh, loolu moom moo daj ci réew mi. xam nga ñooñu jël nañ ko mais dañ ko jël si rasalaay indala. du daj <laughs> nga ne. waaw <laughs> ñoom dañ ko jël. yaa ngi dégg waaw. parce que ngi ni ma la wax waaw. <laughs> Oh, yaa ngi dégg waaw. yaa ngi may dégg. waaw Aliou xam nga ñooñu dañ ko jël rek. di dem noonu. ci ci ci kàttanu yàlla ak yooyu. si waaw noonu lañ ko jëlee. waa ok léegi nag dama lay laaj benn affaire. Uh-huh. yow comme dangay xeex. Uh-huh. te nit ngay xeexal. Uh-huh. yaa ngi dégg xam nga ki jël kooku da koo jël yaakaar fa sa yàlla. mais yow da ngaa jël lii ne da ngay xeex président Macky Sall laay xeexal. léegi ku pareegul xeex loo jëlee lu seer. doo bàyyi ba xeex ba pare. ba xeex bi jeex. kenn mësul gis ku nekk ci biir xeex di jëriñ dara. yi de su fekkee. am na wala amut bu ñuy dem Gambie du ma ko toroge pour mu nelaw ci yoon. <laughs> sinon ah, Gambie ba Dakar. Ah, am na ah, waxal. <laughs> waaw man xam nga lu ma bëgg Aliou. <laughs> waaw bu ñuy waxtaan. dañ wax dëgg. waaw dagg ñëpp ali ali parce que kii dëgg ngay wax mu toll nii dagg yaa ngi dégg ah, ah. lu mu fi wax sànq ah, bu ma ne ah bu ma xam yaa ngi dégg xoola dafa ne ko waaw xolam bu rafet la affaire yooyu mais nee ko bàyyi li ngay def nga dem liggéey yi waaw mais man li ma wax da nga ko mën a weesu yaa ngi dégg boo dul dëgg xanaa yow <laughs> man li ma wax du ma wax leneen lu weesu loolu bañ naa ko ba dama ni ko na lu mu def mhm. waaw na business na ut business loolu laa wax man mii toog ma daq wayaan kaay leen ni wayaan man wayaanoo bee balaa li muy def di nga ko def yow déglu rek déglu di nga ko def déglul man wayaanoo bee bu mag la déglu rek jimboori man wayaankat bu mag la original ndëmba wan maa ciy seeb mais ndax mais nag kaay ma la. je travaille déglu rek. lu mu néew néew muy benn muy ñaar muy ñett maa ngi liggéey. waaw. maa ngi liggéey Feeling Dakar. maa ngi ak sama atelier. voilà non dafa ndànk rek jël lu mu néew néew new su ma amee soxla bu këtt ne jonn ah war naa ko mën a faj sama bopp. lu tax ñoom defuñu lu ne këtt mais loolu ñoom la. moo koy fekk loolu ça n'engage que eux mais dama ni Fatoumata Fouta Tampi laa la wax. xolam rafet na nit ku baax la mais dama ne ko na dem uti lu mu def loolu kay leer na na liggéey no business mu liggéey ko et ndimbal na ca fekk loxoy borom. nit balaa mu lay jàppale da nga jàppale sa bopp. Mm-hmm. waaw mm-hmm. waaw man foofu laa waxee ci boori man loolu laa la wax di yow. Mm-hmm. affaire yi man daf maa jaaxal. wala déggoo la eh demal yow waa baa la baa waaye wala <laughs> déggoo la. yow ku soof nga. gis nga nag ah. gis nga nag. Ah. yéen ñi may seetaan. Eh yàlla bi ma tiim xam naa ni dinaa jóg léegi dem nekk ko ñëwaat ko. wax. sa xarit la xoola dafa dafa fàtte de mais mos nañ fi def émission ma ni ko eh waxal kii dëgg. et eh ngi dégg xoola kaay ma wax la benn affaire xoola kaay ma wax la benn affaire doomu aadama bu nekk. Mhm. wallahi yàlla bind na sa wërsëg loo xam ne boo sababloo xëy na la ngay dàq di nga am lu ko ëpp. mais man xam nga lan laa mënul comprendre Aliou. Hmm. ku nekk ci internet bi di xas Ndeye Gueye ma naan damay xeexal Aliou pour xas nday Gueye man affaire bi dafa ma jaaxal quoi wax dëgg yàlla ma war a man di wax nday Gueye pour yow nga fay ma affaire bi daal dafa ma jaaxal parce que keroog am na benn artiste bu ma woo ma wuyu ko moom tamit influenceur la mu ne ma yow dooy dóor kaay ma jàngal la nu ñuy dóor yi mu expliqué ba pare ma ne ko ah kon nii la mu ne waaw ñu ne xam nga mu ne buñ ne comme nii boo leen joxul xaalis dafa am ñu xam ne dañ leen di yàqal léegi buy yàqal kooku kooku dalee koy jox xaalis. looloo bari ci dëkk bi am pagaay xaaral man nag xamee ma ko woon noonu. ba bare man bu bu fekkee damaa génn ci yow ndey gay vraiment duma wax say affaire. yaa ngi dégg ba pare dil ku ko yëg ci dil bi nga man boo ma joxee ma lay waxal lu baax te li ma lay waxal léegi mënoo ko gor moomul loolu xoola xoola mënoo ko gor am na yenn sëriñ yi la de si nee na sëriñ day ñëw jox ko xaalis bu weex naa li ngay wax mu waxal la man ma ne ko mais léegi yow est-ce que leeroon na la kooku mënul mu ne waaw ma ne ko mais dil ku ko yëg ci dil bi nga pour ko pourquoi man may waxal kooku ba pare kooku mënul ndey gay kooku génn mais ni garab yi muy joxe est xam nga bu fa rayee nit yow rayaale nga. waaw ci responsable yi nga bokk. waxa rek. waaw waaw mais man comprendre wu ma ko woon noonu. gis nga gis <laughs> gor moo yombul. <laughs> ko noonu gis nga gor moo pour mu waxal wét gore wétali ko gore. waaw gis nga man sama am ak sama ñàkk mbindeef du ko xam. dañ lay xamal ba pare di lekk yaa ngi may dégg su ma yore fukki dërëm damay sant yàlla. su ma yoree ay millions damay sant yàlla parce que am na koo xam ne mu ngi xëy soo ba ngoon jot lal bi mu tëdd jógu fa. Mm-hmm. comprendre nga. Mm-hmm. kon am na yenn yoo xam ne daray àdduna jaru ko. man de ku yaakaar nga fay ma sa xaalis man ma lay toog man di la taggal say maam. man bañ naa ko ba sax sama wayaan gi yëpp nag du ma wayaan ku ma xam sax baax na mais saaga eh! saagaal ma man du ma wayaan ku ma xam man damay dem ci mbooloo sax ñi ma àndal diw may leen xaalis te xaw ma diw boobu ñu ne ma demal ci diw boobu ma dem ci diw boobu mu may may parce que xaw ma ko dama dama baax naa lool nag mais boo ma doyadilee rek jot ma boo ma minimiser rek jot na wala nga xeeb ma rek danga may jot wala ma wax ak yow nga am noo waxee man wala ma nuyu la nga am noo ma nuyoo rek nga jot sama nga jot sama xol man noonu laa mel ndax su ma demee ci mbooloo duma wax ak ku ma xamul du ma wayaan ku ma xamul ma dàq wayaan fii ci àdduna bi man. d'accord mais wayaan bu silvisé bu diiñ bu am classe. wayaan VIP quoi. wayaan VIP. mais yow li ngay def nii sax. jumboori mii su ma ko ah. fekkoon ci mbooloo du ko wayaan. yow dama yow boo ma du ma la may. du ma ko wayaan boo ma wayaanee du la may. c'est ça du ma ko may. du ma ko du ma wayaan. ndax xam nga lu ma gëstu lu tax du la wayaan. léegi lu tax wax ko loolu. du ko wayaan ndax comportement kanamam moo ma dul neex du ko wayaan. non yow ku soof nga de xam nga loolu. <laughs> yooyu boo ma wayaanoo ku la dul jam paaka yàlla na dee paaxam moom mooy doon sa lépp teraanga yow ku am siro buy nelawalaate wala doom yi nelawalaate rek nag ma ko may nekkul ci man <laughs> dégg nga barke Serigne Touba Mbacké mën na wax Dakar ba Gambie billaay wallaay wallaay Dakar ba Gambie mën na ko yaama daqa wax yow mi nga xam ne da ngay xoolal mbuur ñuy dem ci Soxna Aïda Saliou ah. ñu dem di seet Soxna Aïda Saliou ñu dem reportage laajal boogaani ma. voilà kii day jékki-jékki boogaani ma léegi jimbori mi kañ lay. kañ noppi ma ne ko du noppi. allez boo amee sa liggéey nga def ko quoi nekk di déglu waxu dopp. moo gën quoi. c'est que liggéey quoi. man man weeraay bi ne daa bëri. waaw tët tët tët. non lii mën na duma ko gérer. nga jox ko sa bopp yow mi nga xam ne foo toll yaa ngi gëmmën. lii mën a duma ko gérer nga ni ko. soxal nañ <laughs> waaye Aliou xam nga man. lan la guddi laay bañ quoi waxu dof. am kii <laughs> mooy seen yaay. mooy seen bàjjen waaw gaalu dof dof lu boobu moo formé ñooñu ñëpp. barke ah, Seydina Muhammad kon su fekkee man su fekkee. Aliou su fekkee bi doon bëree kii moo ko daaneel moo fexe bañ daaneel. su fekkee Ouzin Keita man rayu ma man. man diggante bërki démb moo ñëwoon ci open press bi. déedéet xoolal Ouzin Keita waaw di ko way ba <laughs> bul ragal songal Pawlish waaw waaw. <laughs> Ah, voilà Ouzin damaa woo ma dama doon xeex war nga ko war a xeex <laughs> délégué Ama. nga délégué Amar ak Mara Niass donc Ouzin Keita ba pare ma ma gis Ouzin Keita defaat vidéo di tagg Mara Niass <laughs> non Ouzin Keita daal nag nag nag Ouzin <coughs> xeexal Mara non nee ah, ci waxu usin nee kii la doon xeexal lu mu tuddati délégué Amar nga baal ma Ouzin Ouzin dafa dee wala Ouzin dama ko bëgg rek dugg na suñ dara Pawlish coupé ko ba pare jël portable bi denc ci poosam ne ko doo fi dugg mooy bi ñu daan def. ah waaw waaw waaw keroog maa bi. coupé ko dugal ci poche bi nekk. saa Ouzin du lu tax Pawlish bañ Ouzin dugg fi. waaw Ouzin kii Pawlish daa neex nag Pawlish. Ah. na kaam la nit ku baax la. Pawlish. na amul problème ma. xool bu rafet la xoolal bu may toog damaa bëgg nga toog. man nag man nag xool bu la amee Pawlish la. gars yi dof na mu ngay kii ci suuf <laughs> ma ngay kii ci suuf lu garaw gars yi xamuñu ko de xam nga Sénégal li fi baax mooy dafa am koo ko wax neen del dof dof ni ñu jàppale dof boobu yaa ngay liggéey ci suuf lu garaaw a garaaw garaaw gërëm nañu leen léegi looy jeexale plateau bi damaa